yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare na xaswatu xaaba di ko wax xaswatu si xarat xare boobu la ko waraloon mooy Abdurahman al Fazaari bokkoon ci banu Fazaara dafa ñëw rek ci barab bu ñuy wax gaaba nga xam ne ci côté Medina la fekk gëlëm ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa benn sàmm di ko sàmm mu daal di rey sàmm ba jël gëlëm nga dem jël gëlëm ya daal di daw ah, fekk waa ji ñuy wax salamatu ibnu akwa mooy jàmbaaru xale boobu mu ngi ànd ak waaw benn xale bu ñuy wax rabaa war fasu abu talxatu ba mu demee ba yëg li xew rek ci la daal di xebal rabaa ne ko jëlal fas wi nga dem Medina nga dem wax ko abu talxa li xew daal su ko defee moom mu ñëw ba jege Medina rek di yegg si benn tund daal di yuuxu ca kaw yaa sabaaxa yaa loolu bu gaaraa waxaan mooy musiba xew na ba mu waxee loolu ñëpp xam ne am na lu xew rek mu topp gaañu moom saaru sax mbooloo mi ñëw di waye nag wayam la des naan ana ibnul akwa wala yow ma yow mu daa man maa ibnul akwa tey mooy bisab xalkande tey ngeen dee maanaam ma nga topp gaay rek di leen sànni fett ñi daanu bu kenn dëppee rek topp ko mu daal di làqatu ci ron garab daal di daw ba jekku la rek sànni la fett nga daan noonu la def ba kenn mënu koo mënu koo jàpp moom kenn la ñoom mbooloo lañ mu ngi leen sànni fett mu ne topp naa leen benn dugg ci ron ab ab doj yu xat man ma yëg ci kaw doj wa di sànni fett rek de sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bàyyi gërëm yi nag benn par benn sànni naa leen topp leen ba nga xam ne amul benn gërëm boo xam ne ci gërëm yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa lu mooy rek fare na leen gannaaw ba ko waaye teewul ñu daw rek sànni nañ lu toll ni fanweeri yére yére ak fanweeri boobu koŋ ngir rek gën a mën a xoyof gën a mën a daw mm. luñ sànni rek ma def ci ay doj pour yonentu bu ñëwee sallallahu alayhi wa sallam yi xam ne waa fii lañ jaar ñu ñëw ba ci benn barab bu xat ñu daal di toog nag pour wut luñ lekk mu ne man ma yëg ci kaw dojoo rek waaw xam ñeent ñu bëgg a man maa leen est-ce que xam ngeen ma ana ana salamatu ibnu akwa maay salama ibnu akwa ku ma bëgg jot ci yéen danaa ko jot te yéen ku ma bëgg a def dara du ma mënal dara rek laa wax de yow ngeen wàcc balaa ngeen dee gars yi wax naa ne xëy na gën a tàppale loo mën a gis mu ne balaa may wàcc rek ci laa gis nag gawar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jiitu mooy Axram ka ci topp mooy Abu Qataadatu ka ci topp mooy Miqdaar ibn Aswad mi nga xam ni moo jël gërëm yonent bi daal di dajee dégg nga waaye Abdurahman daf koo rey sallallahu daal di yëg ci fasam. Abu Qataada topp Abdurahmaan moom nga xam ne nii moo jël euh, gélam yonent bi daal di ko jam ray ko moom it de waaw sallallahu alayhi wa sallam nag su ko defee ñu des daw mu ne maa ngi leen topp si damay tànk di dox rek ba jant bi di waaj a so ñu egg ci barab boo xam ne dafa am ndox ñu koy wax dégg nga zaqarat moo tax ñu tuddee ko zaqarat xaaba nag mooy fa gélam yi nekkoon zaqarat mooy barab ba ñu wàccoon pour naan fekk dañoo mar lool ma dàq leen mosuñ sax benn toq ndox sallallahu alayhi wa sallam bëggee di jot yonent bi daal di ñëw sallallahu alayhi wa sallam moom it ànd ak fasam ya ma ne ko yaa rasulallah yonent yàlla bi gaa ñi ñu mar lañ soo ma boole woon ak téeméeri góor rek lépp lu ñu si jur danaa ko nangu sallallahu alayhi wa sallam eh, danaa danaa leen jàppit andi leen na ko yaa ibnul akwa malakta faas jeex yow ibnul akwa léegi nag jekku nga del baale mm. maanaam boo jekkoo del baale loolu mooy jikkoy lislaam lu mbiri métti métti boo demee ba yàlla teral la jéggalal lépp lu paase rek la wax de yonentu ne ko léegi sax jamono ji ñu nga kat faan di naan soom soow rek laa wax de maanaam ñu nga kat faan egg nañ foofu lii mooy ba gannaaw xare boobu yonentu nee na ñi gën ci ñi war fas tey mooy Abu Qataadatu waaye ñi gën ci ñuy dox mooy salamatu sallallahu alayhi wa kon daal ay nit yu ñëwoon rek songu Medina def fu bandi mm-hmm. ñu topp leen daanaka ibnul Akwaam moo xare xare ba loolu mooy xaswatu Xaaba dañ ko tuddee xaaba ndax fa la gëlëm yi nekkoon ñii tuddee ko xaswatu si xarat ndax mooy ndox mañ wàccoon di naan waa ba pare xaybaroon xaybar moo si tegu ak waajal qura waajal qura daal ak xaybar yëpp yonentu yahudi da ko xeex ak sallallahu alayhi wa sallam daanaka mën ngaa wax ne benn xare ba mu demee la dem nag ci yahudi waajal yi daal di foofu la xare boobu xewee sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne yahudi ñooy mbooloo mi gën a danger ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo dajale woon laxzaab yi ngir noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pexe ak xor ci ñoom la fekk baax ba léegi nag bàyyiwuñ seen jikko boobu yow daal xorkat la pexekat la musiba bu nekk ci jullit ñi rek sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo koy taxawee ba nga xamee ne nag laxzaab jeex na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa kóllë rek Quraysh te yahud yi defoon nañ musiba bu mag mooy fexe dajale laxzaab yëpp mbooloo arab yëpp ngir fagaagal eh, eh, lislaam ak ñi ko gëm ci la yonent nag xam ne waxtu wi jot na nag pour mu waa delloo xaat yow di seen place la nga xam ne defoon nañ ko muy jëf ju bon yàlla léegi faw loolu rek ñu delloo leen ko de ànd ak loolu yàlla diggoon na jullit ñi ca xare Xudaybiya ne waadakum llaahu magaanima kasiiratan taaxuzuunahaa yàlla dana leen jox ay màng yu bëri maanaam xalal ju bëri te mooy xaybar rek laa wax de sallallahu alayhi wa na foo ñu dem xaybar ubbi ko waaye foofu julli ñu dañ ay xalal ju bëri waaye nag bu ngeen di dem yàlla xamaloon na leen bu ngeen ànd ak lu may ko teewoon sulux day biya waaye su ngeen demee nag aay ñi nga xam ne demuñu woon naa fekkee si ñoom dañu wax ne parce que yaquluuna bal tax doon naa da ngeen ñu añaane koom yi xaybar rek moo tax ngeen bañ ñu dem waa su ngeen bëggee dem daal dañ ne zaru naa ne tameekum bale ñi ñu topp leen li yàlla tëral mooy ne man nga ma nekk Euh, xaybar woon teewoon xudaybiya ñoo ko moom loolu ñoom ñu koy bëgg a soppi bu ngeen leen xaayee ñu da ngeen ñoo xañaane rek loolu may jikkoy naa fekk <laughs> moom moom boo tax doxalee dëgg rek mu ne nag maa xañaanee dégg nga waaw keroog ba yonent bi sallallahu sa wa sallam di génn nag moom daf ne bu ma kenn topp lu ma ñi nga xam ne ñooy jaayantoon ak man si ñooñ garab si ron garab ga ñooñu junne la woon ak ñeenti téeméer sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñoo ko topp su ko defee nag mu jël si baa ibnu warfata alxifaar yi moom la bàyyi Medina ñu ne nu may latu dafa bàyyi bun Abdullahi Allaysi muy kilifa ak Medina ga sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi ibn Ubay bopp naa feq yi mm-hmm. yónnee ci yahudu Xaybar yi mm-hmm. ne leen Muhammad sallallahu alayhi mu ngi ñëw ci yéen na moytu waaye nag bu leen ko ragal ndax seen mbooloo mi ak ngàndaay yi ngeen yore bëri na lool Muhammad nit ñi tuuti la ànd ak junne ak ñeenti téeméer rek ñooñu bëri wuñ tàmmuñ ngàndaay na ngeen dëggal seen bopp rek ah ba waa jotee xibaar bi nag ñuy ne ci kinaayat kinaanatu ibnu abil xuqeeq kinaana moom waroon borom këru safiyatu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko jàng dégg nga yowut bu bon la ak xawsatu bun qays ñuy ne ci waaxat faan na leen kaa leen dimbali ñu ndax Gatfaan ñoo doon ñoo doon xaritu yahudi yahudu xaybar yi kaa leen dimbale ñu ci jullit ñi su ngeen ñu dimbalee ba ñu am ndam danañ kóllëraante ak yéen meññetu xaybar lépp bu buñ ko daggee ba pare genn wàll gi yéen ko moom sallallahu alayhi bu sallam buñ matee jullit ñi daal danañ leen jox meññetu xaybar lépp loolu moo doon kóllëre gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ma ngay dem mu ngi jaar ci barab bu ñu wax jabul asrin gannaaw ga mu wàcc ci barab bu ñuy wax Saba gannaaw ga mu wàcc ci xur bu ñuy wax Rajee foofu dafay baare diggante Xatfaan ak yahud yi ndax waa Xatfaan duñ mën a ñëw Saba barab la boo xam ne mu ngi ci barab yooyu yonentu ku mën a xale la fi mu jaar waa Xatfaan duñ mën a ñëw ndax ñëw rek dañuy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Xatfaan yi ñooñu préparé nañ pour dem Xaybar pour dimbale yahud yi waaye ci ndimbal yàlla bañ demee ba ci yoon war dañoo dégg ay yuuxoo ki coow ñu yaakaar na jullit ñi song seen njaboot jël seen i alal ñu daal di dellu nag ngir protéger seen bopp bàyyi nañ tubaab waa Xaybar fa lañ fa lañ dawee daal moom ñu waatuñ sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag ñaari nit ñoo ko doon wan yoon yi ba muy dem Xaybar muy Xusaylu ak Xusaylu bun Xaarija ak Abdullahi bun Nuaymu mu ne kan moo may xawale ci yoon wi gën a rafet ba nga xamee ne nii mën a wàcc ci côté Cham ba yahudi yi duñ mën a daw dem Cham dafa bëgg a baare yoon wi nga xam ne bu yahudi yi bëggee génn dem Cham foofu lañuy ñu jaar mu ne kan moo may wàcc ci yoon woowu Xuseylu ne ko man mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa di dox ba ci cël woo xam ne yoon yu bëri ñoo fa nekk mu ne ko yaa yaa rasulallah yoon yi yëpp foo ci jaar danga da nga fi nga bëgg mooy danga nga wàcc ci barab boo xam ne nii da nga dox si diggante yahudi yëpp daw dem Saam yonent na ko waxal ma yoon yi nuñ tudd benn par benn mu ne ko yoon wi de xasan la tudd xam nga xasan mooy njàqare yonent ne mukk fii moom duma fi jaar sallallahu alayhi wa sallam mu dafa bëggoon turu mu ne ko beneen yoon mu ne change mu ne fii duma fi jaar beneen yoon mu ne xaatib waaw ah, mu ne fii fi jaar xam nga yooyu matt lay firi ah ñu ne moo ne ko hee waxal yonent bi yoon bu baax laa wax tur yu bon yi ngay wax ba <laughs> ko ñu daal yonent daf ko daf na yonent bi benn yoon rek des mu ne ko nu mu tudd mu ne na ñu ne wax ne ko wax ko ne ko yoon yi marxab la tudd ngir ñu mën a dem sa nga ba sa tur mu ne ko yoon yi mu tudd yoon woowu sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag ba ñuy dox ci yoonu yam na salamati ibnu akwa ñi nga xam ne moo doon mu ne dañoo dem ba ci digg bi ñu ne ko ah, dégg nga ñu ne ko salama wala boog hmm, dégg maanaam benn waaye daal euh, boo xam ne ci gaañi la bokk moo ne ko wax ñi rek sa wayi dara amir lañ ko wax dégg mu ne dañoo dox bu guddi rek benn waaye wax amir ne ko yow amir wax ñu sa xasida ya nga doon way ndax waykat la woon mu daal di nag jël xasida ya di ko wax dégg nga amir ibnu akwa mu ne allahuma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna faghfir fidaan laka mattaqayna wa sabbit al aqdama in laqayna wa alqiyan sakinatan alayna inna ida siha bina abayna wa fi siyaahi awalu alayna mu ne yàlla bu woon a yow duñ jub duñ saraxe duñ mën a julli ndax loolu lépp yaa ngi dimbale bañ mën koo gëm yàlla nga ñu jéggal liñ bàyyi mattaqayna mooy lañ bàyyi lañ sàggane daal fidaan laka ñu ngi leen jotee jotee suñ bopp maanaam dinañ joxe suñ bopp ngir xaar sa diine ak sa yonentu waaye buñ dajee noonu nag na nga dëgëral suñuy tànk na nga wàccee suñun ak dal ñun daal isa siha bi naa abay naa bu ñu hooyee jëm ci xare abay naa dañuy bañ a daw ñun duñu hoo ci xare mukk ñuy daw te buñ dajeg noonu ba bis yaay ci yuuxu a ah, wala la ñuy xettali ko ay naas ñun noonu buñ dajeg nga yuuxu naan dimbale ma dimbale ma bu ko defee nag amir ibnu moo way way woowu bu mu ko wayee ñëpp yëngatu rek laa wax de salama moo nettali loolu soldaar yëpp yëngatu waaye dugg ci euh, nopp ñëpp yonentu ne kan mooy wax nii xam nga ñoom buñ ñu daan xombat gërëm yi dañ ko daan woyal ndax gërëm yi ne kan mooy màng gërëm ñu ko na ko yàlla yërëm te saxaaba yi xam nañu ne yonentu kum ñaanaloon rek njéggal wala yërmande ci jëmmam kooku moom dafay shahid moom daal bu ñaanee mbooloo daal baax na waaye yow bu la beddee beddee ñaanal loolu rek mooy na mooy nar ngaa sayit benn waaye ci gaañu ne ah aljana war na ñeel ko yow yonent yàlla bi yëllanti ko woon nga bàyyi ñu ko nag xam nañ ne kon jeex na mm-hmm. ñoom loolu xam nañ ko ci yonent bi du jégalul mukk doomu aadama boo xam ne nii moom personnellement la yonent jégalul moom kese mm-hmm. lu mooy shahid ne loolu moo xew ci xare moom damay ci rek shahid ci yoon wi it saxaaba yi daan nañ yuuxu ca kaw na allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah ca kaw a kaw yonent ne noppal leen seen bopp ka ngeen xoo taxut fàdduwut yéen a ngi kuy dégg ku jege man ngeen a wàññi seen kàddu yi sallallahu alayhi wa sallam bañ ne ba ci saxaaba aw foofu jege xaybar lool ci la yonent julli tàkkusaan ne andi leen li ngeen xam ci ñam ñooñu daal mu doon tey ne ay cere mu sim ko lekk nit ñi lekk ba timis jot mu julli timis galaxndiku nit ñi galaxndiku maanaam dafa jug daal gën a xam ne ko nit ñi gën a ko mu jàpp mu julli timis waaye jàppwaatul ndax jàppal takusaan la kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekku woon ne waxtu wu nekk rek daf ko doon jàppal ndax julli na takusaan timis jot mu lekk gën a xam ne ko lan la def di julli timis te jàppwaatul gannaaw ga nag mu daal di julli gaye ba gaye jotee bu ko defee nag julli ñi daal di fanaan ba bëset gi nga xam ne nii daal ci suba googu ci lañ song waa xeebar waaye yahuud yi yëguñ li xew ñoom te yonentu sallallahu alayhi wa bu songaan aw nit dikkal leen guddi daaw leen song ci guddi ga daan bàyyi ba fajar jot mu daal di song ba mu jullee fajar ba pare teel a julli maanaam xaar ba mu leer daal mu julli fajar daal di war mbooloom juróom ñi war ñu ñëw xeebar nag fekk waa xeebar ñu nga yore seen peria ak seen nattukaay fu dem ci tool ya xeebar barab bu bëri woon tàndarma ak mbay ñu ñu mënoon a bay lañ suuf su yaatu fa amoon ñu nga yore seen période yi liggéey di xëy daal yëguñ lu xew bañ gisee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbooloo ma ñu commencé daw naan wallahi Muhammad wal xamis Muhammad ak soldaar ndax soldaar xam nga ne juróomi ponk lay amee ñu nekk ci ndeyjoor ak càmmooy gannaaw ak ak ci digg ba moo tax ñu dee ko تلين دونا محمد أق والخميس واي محمد تصل داريا دالي دلوات سن دكينا بين تجي سيلوني الله أكبر خريبة خيبر الله أكبر خريبة خيبر من الله أكبر خيبر ربنا الله أكبر خيبر ربنا إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين من بن واكي كي بان اتب او نيت ندو سبو سن قري صلى الله عليه وسلم بوكو ديفه نك مو جيل حباب mundir hmm. dégg nga maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daa wàcc ci benn barab pour ñoom ñu taxaw fa xubaab bu mundir daal di ñëw ne ko fii nga wàcc yàlla la fi wàccee wala boog affaire guerre rek la yonent ne ko pexe rek la affaire guerre la mu ne ko ah fi nga wàcc dafa jege pale na taata xam ngeen ne xaybar pale yu bëree fa nekkoon maanaam tata mooy barab yi nga xam ne boo fa duggee ci jamono xeex kenn moo lu dara hmm. ne ko fi nga wàcc jege na tata na taata boo mboolem xeex de xaybar foofu lañ nekkee te ñoom xam nañ ñun duñ nekkee ñun duñ xam lañ nekkee buñ mën nañoo sànni fett mu dal ñu te ñun mënuñ leen sànni fett te mën nañoo xaar ba guddi sa ñëw song ñu benn yoon te fii dafa bëri tàndarma te xuur la te suuf si suuf su bekkoor la su fekkoon ne mën nañoo toxu dem ci barab boo xam ne dana gën a teex te danse yëpp amu fa loolu mooy di gën yonent ne ko wax nga dëgg sa xalaat bi mooy xalaat bu demee ba yonent ci yàlla Muhammad di jël ab décision saxaaba yi di ko ci génne nga war a xam ne ku nekk rek soxla nga xalaatu nit ñi amul kenn koo xam ne xalaatam dafa doy ba soxlawul beneen xalaat su dee yonentu taxu nag dem ci benn xalaat xam na ne lii li muy xew ci dund yonentu xaw naa lii mu demee nag ba war a ne taxaw leen soldat yi taxaw déglu leen ñaan jile ñaan bii mooy ñaan ak dugg ci dëkk dukk dëkk booy mën dugg ñaan gi lañ bëgg nga ñaan ba yonent demee ba dugg xa ba war a dugg xaybar daf ne taxaw leen gaa ñi taxaw mu ne allahuma rabba samawaati sabin wa ma adlalna wa rabba al aradina sabin wa ma aqlalna wa rabba shayatina wa rabba shayatini wa ma adlalna fa inna la nasaluka xayra hadi alqarya wa xayra ahliha وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وبين أقدموا بسم الله بقولين شكر الله yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom juróom-ñaari asamaan ak lépp luñ keral yaay borom juróom-ñaari suuf ak lépp luñ yëkkati yaay borom seytaane yi ak lépp ñu réeral ñu ngi lay ñaan xiwu dëkk bi ak xiwu waa dëkk bi waa ak xiwu lépp lu nekk ci dëkk bi daal ñu ngi musul ci yow ci xayu dëkk bi ak xayu waa dëkk bi lépp la ci nekk lii la yonent bi ñaan ne dugg leen lii mooy ñaan dugg ci dëkk dëkk boo mën a dugg daal ñaan googu bëgg nga ñaan su ko defee nag lii mooy li nga xamee ne mooy am ci yoon wi léegi nag dugg nañ xaybar di des rek mooy xareeg yahud yi ñu ngay préparé nag guddi gi nga xam ne nii su suubaam ga lañu war a songu léegi dugg nañ ci dëkk ba yonent ne bu subaa danaa jox drapeau gi koo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko saxaaba yëpp ku nekk yaakaar ne moom la ko yonent jox Omar ibn Xataab ne mosuma xëccoo palte waaye keroog naa yuqoolu daal ku yonent gis ma daal ne ma Omar kaay ndax garaat ba mu wax bañ xëyee yonent ne ana Ali ibn Abi Taalib ñu ne ko dafa wanentu mu ne awaleen ko xam nga sax ne moom la moo tax may ak yàlla daal ñaareel ko ko moom la kooku lay doon waaye koo fekk ku naan mën a mën a rek ñaareel du moom képp képp koo gis mu yaakaar ne moo gën a xelloo ñaareel du moom doomu aadama bu yëgee boppam daal yàlla ba ko waaye boo demee ba yaakaar ne yow moom doo dara yow daal yàlla rek la ñor waaye daal gënoo kenn amul lenn loo xam ne yaa ko gën a mën na laa jox la loo xam ne mosoo woon da ko am moom la borom xam-xam yi wax nit bu yëgee ne mu ngi suufeel boppam rek keroog la rëylu bis boo yëgee man kenn damaa wàccee sama bopp damaa suufee sama bopp keroog nga rëylu ndax jàpp nga ne yaa ëpp nit ñi kon ni ngay jëflante ak ñoom dangaa wàcce sa bopp rek moo tax nga koy jëflante ñoom loolu mooy jëmmi rëy rek de suufeel sa bopp mooy nga dem ba yëg ne suufeeloo sa bopp nit ñi daal ñooy xam ne yow mii yàlla may na la garaat bopp bii waaye yow moom yëgoo mukk ne yaa gën benn mbindee buy dox ci kaw suuf nak nga yëgee ne yaa gën kenn kuy dox ci kaw suuf te yow xamoo sa mujj xamoo mujj ak nit ñi te mujj yi ci am solo kon bu leen di xëccoo no palte yi falte koo xëccoo rek moomoo ko mu ne xoolee naa lii mu ñëw mu taf li ca bëtam rek daal di ko ñaanal yàlla mu wér bu mel ni mosul mu jox ko drapeau bi ko demal boo demee bu wàcc seen ci lislaam xamal leen àq yàlla maa ngi gën ci yàlla yàlla jubal ci yow benn góor moo gën gëléem yu xonq yi arab yi di xëccoo tey bu doon tey neel moo gën ay milliards kon nga fexe ba benn nit jub moo gën ay milliards loolu kon jar na lu nekk xam nga léegi wuti milliard jaral na nit ñi coono bu nekk wala déet gis ngeen luñ ciy daj kon nga fexe ba kenn nit gindee ko rek ko waroon réer ma ne moo gën a may milliard dégg nga lu ma leen bëgg a waxam taxaw taxawaay boo xamee nit mën na cee jubee bu leen ko xeeb bu tuutee ci àdduna ak suñu àdduna yi rëy na ci yàlla rëy na ci yàlla xaraa moom te bu dee yàlla leen tax a jub nag da ngeen xool ci yàlla ngeen di ko def da leen taxaw mboolem saa su nekk rek taxawaay boo xam ne dañu dañ si mën a gindee ko xaybar ñaari wàll la woon am na wàll goo xam ne juróomi tataang fa mu isnu naayim ak isnu saabu bun muaas ak isnu xalaatu zubayr ak isnu ubay ak isnu nazar yëpp yonent war na ko hubbi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen ñetti tata goo xam ne nii mu ngi nekk ci barab mu wax ne taatatu dégg waaw sallallahu alayhi wa sallam ah am beneen wa dégg nga ne taatatu ak eh, ak ak ak chaq yi ñu di ko wax chaq am benn wàll geneen wàll gi ca xaybar mooy katibatu foofu ñetti tata rek dafa nekk mooy xisnul xamuus mooy pare bi nga xam ne doomu eh, banu ubay al uqayq doomu ubay al uqayq ñoo ko moom ci waa banu nadir ak isnul watin isnul sulaalim kon ñetti sata yu njëkk yi moo nekk nataata mooy isnul naayim tataak naayim ak tataak saabu bun muwaas ak tataak xalaatu zubayru ñaari tata yu mujj nag ñoo nekkee shiq mooy isnu ubay ak isnu nazar boo demee ci beneen wàll ga ca xeebar mooy katibatu foofu ñetti tata fa nekk mooy tata gi nga xam ne doomu abi muqayq yi ñoo moom ci banu nadir xam nga ne foofu la yonent bi jëlee safiyatu dégg nga ak isnul watin isnul sulaalim tat yi ñoo nekk xaybar nag fa la yahud yi doon làqatu bu gën xamee kenn mënu leen dara am na yeneen tata nag yu bokkut ak yi ma tudd waaye yu ndaw lañ daanaka muñ kaaraange bu baax bu ko defee tu yonentu sallallahu alayhi pare pour songu xeex bi muy gën a méttee ci nataatatug chaq foofu la gën a xeex mu gën waaye tata yi des moom ñoom yonentu dafa ñëw rek ñu jàll jébbalu ñoom xam nañ ne dee nañ benn yoon tata gi njëkk bi nag mooy sunu naayim wax naa ne nasaatu la nekk moom la julli ñi njëkk a songu ndax mooy tata gi gën a foor yahud bi gën a jàmbaar ci yahud mooy marxab nga xam ne kenn loxoon waaye mën naa xeex ak junne fa la nekkoon àll yi defee Ali ibn Abi Taalib yonentu jox na ko drapeau gi Ali dem na ba ci Hisnu Naim mu daal di xoo yahud ñu bañ ne xeex rek la ñuy def ak yéen ñu daal di génn nag ndax boobu xeex bi commencé gu am wóolu nañ seen bopp seen buur bu ñuy wax marxab mu ngi ànd ak ñoom bañ ñëwee ba ci terrain bu ñu xeexee marxab ne wa ku ñemee liwaatoog man na ñëw salamatu ibnu akwa nettali ne bañ ñëwee marxab dafa génn di daagu naan qad alima alxaybaru anni marxabu shaki silaahi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talahaba jàmbaar la woon nag mu ne xaybar xam nañ ne maay marxab maay borom ngàndaay lu dëgër li maay jàmbaar bi ñu yàggee si ci toolu xare buy xeex bi jublu si rek damay tàkk mel nii safara rek laa wax amir jug muy amir ko doon way way waye ibnu akwa ne qad alimat xaybaru anni amirun saaki silaahi batalun muxaamiru xaybar xam nañ ne man maay amir borom ngàndaay lu ñëw li jàmbaar ji nga xam ne ku ñemee risque la amul lu muy ragal Hamid daal di songoog marxab ku nekk dóor sa morom jaase marxab bi dal ci pik bi mu baare ko Hamid daal di sëgg rek pour jël jaasem bi dóor dóor tànki marxab ya fekk jaas ji dafa gàtt ba mu koy ba muy dóor tànki marxab ya mu mooy rek jaas ji tourné dal ci xóomam ya moom dagg sidit yi moom ya taf sidit boobu sidit la boo xam ne nii mooy sidit bi daggoon ci Saadu dégg nga ca xareeg dégg nga laxzaab du loolu lañ jàngoon hmm? sidit boobu moo dagg eh, sidit yëpp ci lañ jokkoo hmm. xam ne bu daggee dara ji day sotteeku comme robinet nit ki day dee ndax sidit yëpp ci lañ jokk mu dóor bu boppam jaas ji tourné rek dal ko foofu mu daal di eh, dee moom ci loolu la génne àddina nañu ne ah Amir moo rey boppam dafa xaru dafa xaru ndax daal moom moo rey boppam yonent ne mëkku ñaari tiyaaba la boole kay innahu la jaahidun mujaahidun qalla arabiyun mashaabiha mislahu yonent ne ku sonn la ci jaamu yàlla waaye jihaad kat la it ñaari tiyaaba la ko tiyaabaay koo xam ne nii boo ko fekkee fa ci jaamu yàlla waarab jaamu yàlla ma ngay gis ne ku ci sonn la te toolab xarab yi jihaad kat la bu arab bu dajale jikko dafa jihaad daal di woote waat am na confiance nag ne yow eh, kuy كما سوي ويم يقن علي من خيبر أني مرحب ساكي سلاهي بتر مجرب إذا الحروب أقبلت تلهبا جنباري جنباري دالي جمعي علي النبي طالب أنا الذي سمني أمي حيدرا كليس غابات كريه المنظر وفيهم بسعي كيل السندرا من ما يكسم يا تدي حيدرا حيدرا ما يجيني عربي سيسن باخ لنا يا تدي باجي تدي إمام علي نك Abu Taalib dafa génnoon yaayam tuddee ko Asad Asad mooy gaynde maam maamu Ali rek la de maanaam mooy ki maamam ci wàllu yaayam mooy Asad la ko tuddee Abu Taalib daal di ñëw moom tuddee ko Ali moo tax Imaam Ali ne man la sama yaay ay Haydara ne nañ marxab dafa géntoon gaynde di ko lekk Imaam Ali fàttali ko gént googu ngir tiitloo ko ne ko gaynde googu la lekk jëm ci guddi man la yaay sama yaay tuddee Haydara ma mel ni gaynde xale gi nga xam ne ni kenn ñëmul jàkkaarloog moom su meree man su ma meree ci toolu xale jàkkaarloog man yombut boo fi yéen bi saa yi dinaa leen matalal ci natt gi kay la sandara natt ak sandara sandara ñu ne mooy pot bu yaatoo yaatu bu mu ne bu xale bi jotee danaa leen rey gu méttee méttee métti mel ni la ma leen natt rey ci sandara rey ga ma leen nattal sandara la sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee rek ci la songo marhab rek daal di ko dóor mu daal di dee ñu daal di ubbi tafe googu sallallahu alayhi wa sallam ah, nee nañ Aliyin ba mu jegee tafe ga nag benn yow dafa yuqoolu ca bopp tafe ga ne ka yow kan mu ne ko ana Ali ibn Abi Talib may Ali doomu Abu Talib yow bi ne ko alawtum kawe ngeen wa ma unzila ala Musa maa ngi gën ki ah, maa ngi gën ci ñu wàccee ci Musa ne kawe ngeen noonu lañ reyee marhab Yaasir mbokkam marhaba génn ne kan mooy liwaatu man Zubayru daal di génn fekk Safiyatu yaay Zubayru ma nga teew ne a yonent bi ndax dañuy rey sama doom mu ne ko sa doom ji moo koy rey ci lañ liwaatoo rek Zubayru daal di rey marxab xeex bi xew agud gaawaa yonent dalal na Safiyatu ndax dafa tiit ba doom ji génnee di liwaatoog yaasir mbokkam marxab ba Safiyatu ne a yonentu mbaa duñu rey sama doom ji mu ne ko mukk sa doom ji moo koy rey waaye sa doom ji kenn du ko rey xeex bu métti xew na foofu daal ci Hisnu Naim ci ay sangi loolu tax yow yi daal di décoration amatuñ pexe mhm. waaw mënatuñoo songu jullit ñi nag waa am nañu ne daal xeex bi dem na ay fan gannaaw ga nag yow di naagu jullit dugg ca biit tataga daal di ko ubbi nag daal di ko moom yow di si desoon ak génn si desoon dem si xisnu saabu pour làq toor foofu bu ko defee nag jullit ñi bañ pare ci xisnu naayam ña nga jëm ci xisnu saabu ba nga xam ne fa la yow di làqatu ngir jëflante ak ñoom dana yoon ñu nettali daal nañu ubbee tata yëpp ba ne xare xaybar jeexee yaa daani lu islam wa salaatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu